là aussi de rencontrer les ambassadeurs des États partenaires, de rencontrer les, les gestions qui sont euh, basées au Sénégal, des gestions internationales. Donc dès la semaine prochaine, nous avons déjà des rendez-vous et nous allons porter le plaidoyer auprès de tout le monde pour que tout le monde ouvre les yeux sur les risques et les menaces qui pèsent sur le pays. Et ça, c'est un élément du plan d'action. Et au de là il s'agira d'organiser une grande manifestation. Il est vrai que le Magal euh, est très proche. C'est pourquoi nous allons la date du 8 septembre pour faire cette grande manifestation. Il reste entendu, il a été répété, que F24 a déjà déposé de manifestation, les cartes ont été rejetées, interdites par arrêté préfectoral. Nous estimons que cette fois-ci, évidemment, le gouvernement, le préfet, euh, aura euh, la capacité de comprendre qu'il ne peut pas continuer à bafouer les lois et les droits des citoyens. Donc, il est prévu une grande manifestation le vendredi 8. Il est prévu la reprise du dialogue du peuple. La poursuite du dialogue du peuple, parce qu'il faut le préciser, ce dialogue il est important en ce qu'il porte au moins sur deux points essentiels. Le premier point, c'est la réforme, les réformes institutionnelles, qui doivent permettre de tourner la page définitivement à ce qu'on appelle et déplore le présidentialisme monarchisant, l'hyper-présidentialisme. Comment tourner la page Il faut qu'on en discute à partir des Euh, conclusion de la et des assises nationales, nous pouvons trouver un un président qui façadise et le pouvoir judiciaire et le pouvoir euh, Donc, c'est important ce dialogue-là qui pour qu'on arrive que devraient signer euh, tous les candidats, à commencer par ceux de F24. Mais également, tous les candidats qui sont euh, candidats à la présidentielle devraient pouvoir signer pour enfin, j'ai dit, qu'on puisse tourner la page de cette funeste président, ce funeste présidentialisme monarchisant. Le deuxième élément de ce plan d'action, le deuxième élément de ce dialogue du peuple qui reste à faire, c'est précisément euh, les élections. Parce qu'il ne faut pas que l'opposition aille aux élections en rang dispersé. Il faut que tout le monde convienne que euh, nous avons parlé de l'arme létale qui est entre les mains du pouvoir, à savoir le parrainage. Euh, il y a également que par des artifices juridiques on est en train d'essayer de barrer le chemin à la présidentielle à Ousmane Sonko et à Kenda. Donc il faut qu'on trouve le moyen justement pour qu'il y ait une élection inclusive, une inclusion, une élection transparente, sincère et apaisée. Donc ça c'est important pour qu'on puisse poursuivre cette, ce dialogue du peuple. Il s'agit également, dans ce plan d'action, d'aller vers ce qu'on pourrait appeler un pays à l'arrêt ou une ville morte. Dakar, ville morte, euh, c'est également ce que nous envisageons parce que, comme nous avons dit, il s'agit de trouver une alternative à la lutte dans la rue, à la violence. Donc nous pouvons trouver euh, comment arrêter le travail pendant plusieurs heures à Dakar et dans le pays pour que, dans le cadre d'une désobéissance civile, que le gouvernement, que Macky Sall, comprenne le Sénégal est un pays de droit et qu'on ne peut pas laisser passer le non-droit, on ne peut pas passer euh, la dictature forcenée qu'il est en train de nous imposer. Donc il faut qu'on trouve ensemble, avec l'ensemble des citoyens, comment faire face à cette dictature-là de manière pacifique, mais de manière efficace. Et donc c'est ça que nous voulons faire. Et nous allons également euh, proposer euh, l'opération d'ISO, nous l'avons déjà dit, avec les partenaires donc euh, trouver tous les partenaires, leur parler, et c'est ça qui permettra justement d'assurer le succès de ce que nous avons appelé Dakar ville morte ou Sénégal pays à l'arrêt. Donc voilà la quintessence de notre plan d'action. D'autres initiatives seront prises également d'ici là pour que, comme nous l'avons dit, dans une démarche républicaine et pacifique, que tous les Sénégalais puissent se mobiliser pour, pour qu'on puisse atteindre l'objectif qui est la à la vérité, la paix adossée à la justice. donc li ñu bëggoon wax rek ci tënk ci wolof mooy que euh, F24 ba mu fi bi léegi li muy wut rek mooy jàmm jàmm joo xam ne dafa leelu ci dëgg parce que fu dëgg fu amul jàmm mun faa sax fu justice amul jàmm mun faa sax donc pour ñu euh, mun a mottali loolu nag il faut que Sénégal yi may ñu nopp il faut que Sénégal yi ànd ak ñun ci wut jàmm jooju lal ko ci dëgg moo tax euh, ñu fàttali rek ne ba ñu fi nee ba léegi déposé nañ juróomi yoon pour ñu manifester ñeenti yoon yëpp dañu ko gàntal benn bi sax dañu fekk ci kër ci piège siège Malick Gakou ñu génn ñu manu militaire yi te amul kenn fu ñu ko teg ci yoon donc muy wane que ñun jàmm rek la jox ci réew mi jàmm lañu bëgg ci réew mi waaye nag li nga xam ne mooy suñu ak suñu def dañ ko xeex dañ ko def parce que li ñu bëgg ci réew mi mooy détenu politique ñu génn leen mooy mooy élection inclusive élection inclusive loolu moom duñ ci dellu gannaaw te luñ mun def pour que mu am dina am dañ ko def donc loolu moo tax ñuy woo Sénégalais yi ñu may ñu nopp ñuy woo Sénégalais yi ñu ànd ak ñun ci loolu nga xam ne mooy ut jàmm jàmm bu ñu lal ci dëgg moo tax ñu lal bii plan d'action plan d'action bi ponk yii la benn bi mooy dañu bëgg seeti waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy chef religieux yi muy ci jàngu bi muy ci l'islam bi ñu waxtaan ak ñoom bu ñuy dem nag dañu ànd ak benn mémorandum mémorandum bi dañ ciy wax lépp li nga xam ne moo xam ci dëkk bi li nga xam ne mooy gàllankoor euh, euh, démocratie te di euh, salfaañe ak ak yelleef fi doomi aadama yi fi nekk donc mémorandum boobu la ñu am la ñu dem waxtaan ak chef religieux yi waxtaan ak patronat bi waxtaan ak ñëpp waxtaan également ak ambassade yi fi nekk waxtaan également institution yi fi nekk yoo xam ne ñu ngi ci réew mi comme au commissariat des Nations Unies pour la défense des des des libertés ak euh, Union européenne ñoo ñëpp ñu seeti leen am na sax ñoo xam ne déjà am nañu ak ñoom rendez-vous semaine prochaine dañu commencé loolu waxtaan ak ñooñu euh, wax leen daal li xew ci réew pour que kenn du umpale li nga xam ne moo xew ci réew bu ñu defee loolu am na leneen loo xam ne dañ ko doxalee mooy euh, def ba nga xam ne li ñu wax rassemblement bu mag a mag a mag dina am bu màggal bi passé loolu ñu ngi ko prévoir le 8 septembre bu boobaa itam dañu bëgg def rassemblement boo xam ne bu mucc ayib la Sénégal yëpp ñu ngi leen di ñaan ñu jóg ñu ànd ak ñun parce que comme ni ma ko waxee jàmm lañu bëgg ci réew mi jàmm bu ñu lal ci dëgg ak ci euh, justice. donc loolu ñu jàpp ko 8 septembre ñu préparé ko bu baax a baax a baax pour que niñ ko bëggee mu amee ko noonu li ñu ciy teg mooy ñu rëb ñu def terminer. dialogue bi peuple dialogue du peuple dafa am ñaari atelier yu ci des benn bi mooy bi nga xam ne mooy wax réforme institutionnelle maanaam dafa am yoo ay soppe ay soppi yoo xam ne dañu ko soppi ci yi ci réew mi te soppi boobu bu ko defee dinañ fexe bi nga xam ne li fi am 1960 bi léegi maanaam am président boo xam ne mooy buur di bu mi lu ko neex mu def ci réew mi lu ko neex mu def ci assemblée lu ko neex mu def ci justice loolu mu di mu dañ fi te pour ñu mu dañ fi il faut ñu am ay waxtaan yu xóot yoo xam ne sax dañ koy teg déjà ci li nga xam ne waxtaanoo nañ ko fii fukki at a ngi nii mooy assises yi mooy CNRI yi loolu ay këyit yu ñu teg la waaye dañ koy actualiser waxtaan ko bu mu xóot bi nga xam ne réew mi dootuñu fi am benn président boo xam ne day def lu ko neex di buur di bumi loolu lu am solo la li ci topp mooy que bëgguñu bëgg nañ opposition bi nga xam ne ñoo ne ci réew mi ñu waxtaan bu baax a baax joxante loxo ba nga xam ne dañ fexe ba élection yi war am jaar ci yoon élection yoo xam ne du niroog yi amoon 2019 bi nga xam ne dañoo pare ñeenti candidat yi nga xam ne dañoo contre Macky Sall yëpp ñeenti ñëpp ne élection yi jaarul yoon loolu war fi am donc il faut que ñu waxtaan bu baax ci loolu donc loolu lu am solo ci réew mi moo tax ñu ne loolu foog ñu àggale ko bi ci topp mooy euh, li nga xam ne mooy opération euh, diisoo ak euh, waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy transporteurs yi ñooy patronat bi ñooñu bu ñu waxtaanee ak ñoom waxal leen wax leen li xew ci réew mi dañu bëgg ànd ak ñoom mooy euh, syndicat yu mag yeeg yëpp bu ñu àndeek ñoom ci dëgg ñu ne nañu fexe ba euh, taxawal li nga xam ne mooy activité yi mu mënu ko def ci par exemple ñu ne huit heures ba midi bu kenn génn këram bu kenn dem ci banque bu kenn dawal oto bu kenn def lii donc muy genre désobéissance yi boo xam ne dañuy won ne sénégalais yi d'accorduñ ak li nga xam ne moom la Macky ak ak góoram nekkee fii maanaam di tëj di rey di salfaañee ak doom ak ak yelleef doomu aadama yi ñëpp buñ jàppee ne loolu warul jàppee ne li mu defee li mu teg ñoom Ousmane Sonko ak ñoom euh, Cheikh Bara Ndiaye ak ñoom Pape Abdoulaye Touré ak ñoom Hannibal jim dëgguwul ñëpp bu jàppee ne buñ jàppee ne loolu dëgguwul ñu ànd def li nga xam ne mooy tax ci jàmm ñu am li nga xam ne moom lañ bëgg ci réew mi maanaam loo xam ne àq euh, ak yelleef dina fi nañ ko continuer donc loolu mooy li nga xam ne mooy plan d'action bi nga xam ne moom lañ tëral pour teg ko ci fan yi di ñëw euh, am yaakaar ne sénégalais yi dañu may nopp am yaakaar ne ñi nga xam ne bëgg nañu réew mi ñi nga xam ne bëgg nañ jàmm ci réew mi dañu ànd ak ñun euh, ñu def ko ci jàmm am jàmm ci réew mi ñu leen di gërëm